ci dëkk bi lañ dëkk président daf ñu recevoir le 8 mai bi passé ñun mbër yëpp ñu ànd dem fa du mbër sax monde de la lutte ñu ànd dem fa ba ñu demee suñu ay bëgg-bëgg ñu wax ko ñu ànd ak suñu njiit muy Bira Sène suñu ay bëgg-bëgg ñu wax ko ne lii am nañ ko problème bii am nañ ko problème bii am nañ ko problème bii am na président apprécié ko bu ñu xoolee dafa am loo xam ne dafa spécial jour boobu président dañ ko defal mooy palais de la République ñu dugal fa ay sabar juróom bañ commencé maam góor gi Njaay suñu papa suñu maam di bàkku président dafa ne ana sabar ñu ne ko mu ngi si biti mu leen dugal leen ko ñu dugal sabar yi pour la première fois ci biir pare ñu nuy bàkku wala suñu cosaan loolu dafa wane respect bi nga xam daf ñu ko parce que ñun ñàkkuñu fula comme ni ko waxee rek fii ñun ñëpp toog on est parti de rien pour arriver à certain niveau ñun ñi ñëpp ba ñu commencé zéro lañu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 ak yeneen ak yeneen côté santé bi comme ni nga ko waxee couverture maladie universelle bi mu installé ko comme kii ni ko waxee bu nit bu loolu dafa baax ñun ñu sant ko gërëm ko parce que ñun duñu ay la ci dëkk bi lañ dëkk ku ñu defal lu baax sant la gërëm ko ba ñu dañ ci dégg lu nekk ñii ñii di génn di saaga ñii di génn di wax ci temps ñun ci temps du ay Sénégalais lañu Sénégal dafa am ay jikko yu bees yoo xam ne amul fu mu te dañ ko commencé gis. muy benn suñu ay papa ak suñu ay yaay da gis ki nekk PS ki nekk PDS da de ree bu jour vote jotee ñu ànd bu ñëwee kër gi ñu ànd waxtaan nag amatul loolu léegi fii ngaa far man dama lay saaga dama lay bind ci bi wax lu ñu ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay baay yaa ngi dégg ñun ñi nii ay am nañ ci war a bëri bu laa bañ jotee dañuy bëri xeex amul négocier de mais ñu ngi toog kaf wax waxtaan parce que jàmm ci la lépp xaj ñii nii jàngal la ba pare affaire yi bu amee da ngay gis ñii combat bu jotee da ngay faral Balla ñii faral Boy Niang ñii faral Eumeu Sène te bokk benn kër da ngay gis benn kër ñii faral Balla ñii faral Modou ñii faral Eumeu Sène am na waaye léegi ndax mënuñoo nangul ne nag bu politique amee ñii faral bi ñu faral bi ndax ñu ko nangul Sénégal dëkk jàmm ñu ñëpp ñoo ko bokk wala mbër moom du citoyen ba mbër bu génnee na ban fii laa bokk wala loolu rek dañ ko war a saaga ndey non non non warul demee noonu warul demee ñëpp ñoo far politique am na quoi parce que politique benn moment la rek mais politique du àdduna bi yëpp politique benn moment la élection day jékki-jékki ñëw ñu dox ci ñi def seen campagne ñi bokk yi naan mais du laaj bi yëpp moo nekk politique élection yi bu passé après ku ne da ngay dem continuer sa liggéey mais boo da nga koy ñafe pour am ko comme naan mais nekkul ñun bu ñu bëgg a tukki dañuy tukki sant yàlla bu baax bu ñu génnee oto yu baax di ñaan mu yokk ko bu baax suñu kër ñoo ko yor ak suñu ay fam yëpp di dimbali suñu ay fam di jaayante bu baax a baax kon ñun kenn mënuñoo jënd dafa am moo boobu dama koy dégg mooy métti bu baax a leen jënd mbëri am luñ kóoloo non non bu mu demee noonu ñun kenn mënuñoo jënd suñu prix kenn xamu ko non amuñu njëg suñu prix kenn ko comme lan dafa baax rek ñu gis dara rafetlu ko apprécier ko wax ci wala ñu gis dara rafetlu ko nga leen di jàppale ñu ñu taxaw jàppale ko loolu la rek àdduna loolu mais bu gis kii faraluma rek le fait que moom dama war a genn saako ay ndey wax ko ñu ñaaw noonu ba pare beneen affaire mi ngi ci mooy kilifa diine yi Sénégal dañ xam ni yëpp réewul tarixa bu ne daam tarixa boo bokk dañuy léegi-léegi ñuy war maa kilifa diine yi daal kilifa diine day wax nga gis koo xam dañuy nga réer commentaire bi da ngay am gàcce ci kilifa diine boo xamante ni kon war maa la ci dëkk loolu jeune bi ñu yëpp dañu war a bàyyi loolu parce que àdduna demewul noonu ñu ñëpp ñoo far ñoo bokk ndey ñoo bokk mais bu élection jotee wala ku damay nangul yow Balla ñoo bokk ndey ak baay wala ñoo bokk làmb ji dama may ñaar yàlla mooy bu ñu ñu paree ñu kaf ñu loolu lañ mës xam xam ne ñu ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay président dafa nekk nit koo xamante ni dafa jàppale làmb li mu defal làmb ni ñu ñu yëpp bu ñu ko waxee bu ñu ko wax président ñaata ñoo fi jaar kan moo wax sponsor di jàppale làmb war nga jël 500 millions jox ko promoteur nañ waxtaan dëgg ne kenn defaluñu ko mm-hmm. mais duñ ko nit defaree yow daal duñ ko remercier du ko sant ku wax ci Macky Sall dara yow yaa nekk ku bon yow lañ war saaga boo waxee keneen dara ñu ne yow yaa yow yaa baax yow yaa nekk nit ku baax ci dëkk bi yow yaa ànd ñaari part ba ñett ba ñeent ñii far fii ñii far fii léegi nag citoyen lambda bi da nga koy bàyyi moom mu xool mu farfar mais ñun ñi ñu kenn ne la kaay far bi déedéet dañu am droit rek gis nit mu jàppale ñu gis ni li muy teg paa yi muy teg mu rafet gis ni kii buñ ko jàppalee gët na dem fenn ñu ànd ak moom jàppale ko yow tamit am nga sa opinion bopp nga gis ku la kii moom a gis naa kii su ma ko saan lekkaat kooku ñu am dara ma ànd la koy ni la ko nangalee ñun tamit nangul ñu bu ñu gisee kenn suñu xel daal ci moom ñu ànd ak moom waaw la rek parce que affaire yi noonu la waaw boo waxee ni man ku ma neex la àndal waaye yow boo ñaa doo ànd ak kenn yow Palla yow doo ànd ak kenn yow da toog rek di xoole non non ñun bu ñu neex rek ñu ànd lépp ñu def ko ci faux agré Sénégal politique c'est pas la fin du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 dañuy choisir suñu suñu suñu candidat ku mënti doon mais nangul ñu ko rek parce que ñoo kooku ndey bokku bàyyi mais comme ñu lay nangu dee nga faral baala ba nga faral muuru nekkul yow da nga faral muuru rek suñu gisee maa yow dañoo war a guerre nu noonu ku ne am nga droit far fu la nekk comme naan loolu mooy li am solo loo xam dañ ko war a message bu ñu war a lancé pour ñëpp dégg ko le fait que nag Sénégal dafa toll foo xamante ni boo waxee dara ñëpp ñu ngi ñu ngi lay saaga ñu ngi lay wax ñu ñaaw ñu xam ne ñu ay borom njaboot la ay responsable la te fi ñu yegg si ñoo fi ñafe ba yegg si fii donc nag dañu ci am responsabilité gis bu ñu neex ñu ànd moom comme su mën a doon ngeen nangul lu ko nag parce que ñu tamit dañ leen nangul ngeen gis ku leen neex ñu ànd ak moom après luy li luy ñu xool ci jàmm ñu continuer laa amoon mooy wax mais di wax ne daal boo gisee yi ñëpp dafa nekk loo xamante ne dañ ci ànd engagé parce que ñun ñii fii duñu ay ragal comme naan te kenn wax lii suba nga wax lee